والقلم وما يسطرون paala yaaññe seeɗa ɗum waɗi eh, commune fof no mbimi o naane ɓeyde neɗɗo gooto pour ngandon ko yaateni pour toujours kala ko yaate ɗum poti ɗum anndude ɗum waɗi e fedde fedde nde wadde natta weeso so yama heedi yeeso annda ko yaate taw toujours ɗi amni kono so anndi ko yaate hen siko lamdinama han nimmi nan ɗum ɗo kono an o waɗa ko moƴƴi ɗum waɗi mbamɓe neɗɗo goto ar e ɓe janto e yesso ko addi ɓe ko defte ɗe ko windaɗe ko juju amma normalement foti wonde watte less pour sukaɓe gekkito wawde windude kamɓe ko ɗum woni haaji maɓɓe bindi neɗɗo janngoɗo wawa windude ɓe mbaɗa concours bindugol alqouran wona concours jande qour'ana e mbatta ko concours windugol janngo e alqour'ana E ɗum hitago ɓe mbaɗat ɗum ɗum ɓe jiɗi noon yañude hombo kala ceerno jiɗɗo tawede e concours uji bindugol ngol daara e ko ɓe bindata ko daara si tawi a wawa tawede ha on tuma ɓe mbaɗat ɗum concours bindugol qur'ana hitan fof hitan e ɓe jande ni kamɓe kala hitan fof mbaɗat noon concours windugol ɗum ɗon ala duuɓi noon ɓeeɗa jogui ɗum ɗo kañ ala duuɓi no wonta aɗa wawi winde joni ɓe janto hono alhaali o woniri ak ci taxawaay bi ci liggéey alxuraanul karim eh, ñi ñëw tey rek tànk yoo xam ne eh, ni ko sëñ Sam waxee eh, tànk yuy feddali la ndaxte taxaw nañoo jóg ba ñëw fi yàlla dogal ñu egg ci daara yu baree bari ñu gis na ne comme que loolu am na waaye tamit fàttali dafa baax rek ak di ak di yeesalaat kon loolu mooy moo war a tànk tey lañu ñu a jóg moo doon mbindam alxuraan gis-gis bañ ci amoon ci ne dafa war a dikkaat ñu delloo siwaat ko boole ko ci njàngale mi ndax mënta ñàkk société bi nga xam te ni moom moo di c 3 mooy compagnie Serigne Seck te ñuy jaay verre yi nekk ci kii ak aluminium ay dong daara ñoom ñoo ko ñoom la yàlla dogal ñuy ay sëriñu daara doon jaxantu ca marché ba ba njaay ma barkeel société nag fu mu mënti nekk ci ci àdduna ak ci Sénégal daa war lu muy jël di ko delloo ci société bi moom la ñuy wax responsabilité sociétale mu comme neex nag yóbbu ko ci bëre yóbbu ko ci football yóbbu ko ci lu la neex waaye ñoom na comme ko dañu waa daal lépp lu ñu delloo daal moo ci société bi ci ci daara lañ koy delloo loolu moo waral tamit ñu nekkoon kon nañ xool fànn goo xam ne gis nañ ne amaana nit ñi jëmuñ nit ñi te nekkuñu ca waaye mënta ñàkk ñu gis ne bind alxuraan moom dafa mënta ñàkk ngir lu baree bare moom acteur ak ak yooyu lii ko tax tamit mu mel ne dafay nekkoon te waa ji demaat tamit loolu tamit lu ko waral lu baree bari la waaye daal moom gis nañu jàpp gi moom daa mënta ñàkk lu am solo lay doon ci ci alxuraan ñu ne nag kon nañ ci jàppale waa daara ànd ci ak waa daara loolu moo waral taxawaay bi ñu ànd ko ak waa daara yëpp jaaree la ko ci fédération bi ak ci rabita bi loolu mooy liggéey bi nga xam te ni C3S e moom taxawaay boobu la am loolu nag ana ni mu koy defee ay fànn yu baree bari la téere yi jàng gis nañu manqué nañ ci daara yi tey nag ku bëgg jàng bind ci téere bu ñu eh, eh, móol ci machine tàppe ko du yomb kon faaw ñu jàngal nit ñi xale yi bind ci téere yi yoo xam dañ ko bind ci loxo ku loolu moo tax tamit ñuy góorlu fexe bu ñu mënta am lépp tamit ndaxte ñu ngi ci yoon wa ndax kaamil bi moom moo ki moom moom lañ nekk di ko wàcc waaye par jukki rek nga koy mën a def ndax alxuraan moo mel noonu boo ko bëggee topp topp mënta gaaw moo tax ñu indi jukki waaye bii yoon tamit société bi da ko plastifié ndax gis nañu bu dee jukki directement rek man naa gaaw a yàqu ñu plastifié ko ndax mu gën a gudd fan tuuti yokk ci naka jàkk comme daal am ay bâche loolu tamit incha allah kon daal loolu mooy jumtuwaay jàng bi ñaareel ba tamit mooy tamit mooy taxawu jàngalekat yi ak ñiy jàng ci formation wàllu mbind mbind tamit man mën na sa ko xóotal loolu tamit société mi ngi ci def ay jéego waaye ndànk-ndànk rek lay doon moom tamit ñu ngi leen di nuyu lu bari nuyu Mouhamed Diamanka di nuyu Mouhamed Bouwaro suñu mbokk yi ñoom miinante nañ bu baax ndax dañ bokk même fédération di fu ñuy liggéeyee dañuy daje ay at ñi ñi ngi liggéey ak ñoom ni ko sëñ Mamoun waxe imaam ñëwoon nañ sa kër daaw jeeg mais mission boobu rek ci lañuy dox xam ngeen ne jàng alxuraan karim ak bind alxuraan karim bi fi alayhi salaam yonent bi nekkee ñoo àndoon alayhi salaam keroog bi mu fiy jóg alxuraan karim bind nañ lépp fu nekk am na lu ci ab saxaaba yore saaba yi def yitte dajale ko ba mu nekk ci benn béréb kon ñun alxuraan koy buñ ci jotee bind moo tax ñu jot ci su doonoon mokkal rek nit ñi dañuy faatu day jeex ah ni ñu defee nag saaba yi téye ko suñ maam yi téye ko ba mu agsi ci ñun bokk na suñ devoir ñu téye loolu ñun tam tegaat ko ci yeneen i loxo te loolu nag ñu ngi ko mën a téye rek ci bind mais mokkal rek nit ki saa faatoo rek loolu jeex na alayhi salaam bis nee na man kataba ani ghayral qur'ani falyamhu ko doon bind lu bokkul alxuraan kay na nga ko farta boobu xadis la saaba yi di commencé bind alayhi salaam xër ci alxuraan tax mu ne nañu lépp lu dul alxuraan bu ko kenn bindati xam ngeen jóge nañ fi duma téeméeraat daanaka saaba yi dara commencé eh, dajale xadis yi kon ñu xam ne xuraan bind alxuraan alayhi salaam def ko tegoon fu kawe aada jooju nag xam ngeen ni ci réew mii nekk na fi yàgg na fi ay at yu yàgg aada la ci ñun ñii li ci famille Mbàkke ñun suñ famille bala ngaa def dara da ngay mokkal alxuraan karim da koy bind da gën jaayne da ngay bind ñaari kaamil yoo xam ne doo ko xool doora a jàngi xam-xam loolu mooy suñu aada ñun loolu lañ aada woo loolu nag euh, dañ gis ne ñu bari dañ ko tàmbulee euh, desal ginnaaw te dafa bokk ci diini ji dafa bokk ci njàng mi dafa ànd ak alxuraanul karim société bi nag comme day taawun ak daara mu xool wet gi nga xam ne xëy na taxawaay bi des na fi mu jàpp fi xam ngeen ne bu dee jàng alxuraanu karim mokkal ko jàng bu neex àddina bi yëpp xam nañ senegal àddina bi yëpp xam nañ senegal waaye nag ku ne xam na ne même bind bii noonu lañ ci mel mais ne concours international bu bind dafa amut waaye soo amoon senegal mooy jël mooy jël peri bi ci lu ñu wóor parce que ñun jaxasoo nañ ak ak ak ñoom xam nañ ne ñoo leen ci man mais en ci suñu biir dañ gis ne moom mi ngi jeex donte jàmbur yi xamuñ ko mais ñun xam nañ ne mi ngi jeex. ñi ko doon def ñu bari ñu ngi koy desal ginnaaw ña ko daaw def ba léegi defuñ duñ ko def eh, ñun nag ñoo ko mën a dundalaat ñun ñi ñoo ko mën a dundalaat. loolu bu ñu ko jaaree ci concours bi xam nañ ne juróomi at yi ko c 3 taxawal soppi na lu bari ci loolu. ah Jurbel dem gën nañoo fonk bind lool daara joo dem ña daan bind ña ngay gën a bind ña daaw bind aussi ñu ngi bind dañ bëgg nag mu tas ci Sénégal gi yëpp tas ci Sénégal gi yëpp lii ñu leen woon Cheikh Anta Gawane ki njëkk jël premier ci concours moom moo ko bind ci loxoom moo ko bind ci loxoom taay mbooloo mu dul jeex mu man lii ñi ngi foofu dañ bëgg nag mbooloo mu man lii nam amee foofu mu tas ci fépp mu bañ a nekk rek ci benn bërëb fii seetlu nañ fi aaday teel a bind daara yu bari Sédhiou côté yooyu fu ñu xool daa taalib yi dañuy teel a bind lool ñun yéen loolu yéen ñu ko jiitoo fi fi ma jaar. alléwa yoo xam ne ki ko bind mi ngi tolloo amayta saaluun amut fële waaye nag da gis ne xale bi taxawu ko day bind rek kem nam ma ne alléwa yoo xam ne boo xoolee masalan alléwa yëpp maa ngi koy fàttewuma ko ba ñeenti baat moo fees alléwa ji bismillahi rahmaani rahim ida ida shamsu kuwirat wa ida nujumun kadarat alliwa ji eh, moo ko fees fee la xale bi commencé bind parce que loolu la man da gis ni kii ni mu teelee bind suñ ko tàggatee dana gaaw a mën a bind trop kon lañ bëgg rek ñu tàggat xale yi ci bind looloo tax kii bi ñu andi ren ñu def ko forme boo xam ne eh, forme boo xam ne dañ cee bind mboolem mboolem araf kii mboolem araf yi maanaam abajada yi tàqale eh, forme bu nekk xeet yi ci am yëpp ñu ber ko xaa bidayatul kalima xaa wasatul kalima ha nihayatul kalima araf yëpp noonu lañ ko def ngir rek ñu mën a tàggat xale yi ci ci ci ci ci jàng bind ñu bañ a demee rek maanaam seeni i seen i seen i man-man mais ñu tàggat leen jàngal leen bind suñu ko defee nii ngeen mën a teel xale yi ni ñu mën a teel a bind fii ci côté sud bi amul fale bu ngeen bu ñu leen jàngalee bind danañ gaaw mën a bind lool lool lool ku xam na ne bind alxuraan karim mën a bind moo gën a yomb mokkal fopp mais dañ leen ko jàngalut dañ leen ko jàngalut mais mokkal ko karim mën a bind ko gën a yomb fop bind mahaara la mahaara la du xam-xam mahaara la soo ci tàggatoo liir bu gàtt danga koy mën da koy mën bàyyi loolu ñoo xam ne ñoo xam ne mën nañoo bind te mënuñoo liir sax parce que bind mahaara la bind mahaara la kon ñu bëgg daal ñu tàggat xale yi ci bind tàggat boo xam ne dana jàppale bu baax alxuraan karim saa ñu ko soxlaa nii ñu ko mokkale ñu man ñu ko bindalaat bàyyi ñu ko fi euh, concours bi nag xam ngeen ne pour ñu bokk ci laaj na da mokkal alxuraan karim ba mu jeex kaamilan limaada hada parce que concours bi fu ne la ñuy préparé laaj yi def ko ci ay enveloppe kaste ko candidat bi bu ñëwee enveloppe bu mu jël bu ko teppee lu mu ca fekk loolu lay bind loolu nag faaw nga moo ko alxuraan karim jëpp ndax xamoo lan ngay dajal xamoo looy dajal loolu muy benn ñaar bii da faaw nga faaw da nga mën ilmu rasmu da nga ci jàmbaare nan la ñuy bind alxuraan karim xam ngeen ne boo te boo defoon jël di lu fii téeméer bu ne mën nga ne ñëpp mën nañ tari faatul kitaab yi mais soo ko doon bindlu xëy na xëy na sax ñaar fukk ñoo ko ci man ci téeméer bu nekk kon ku ne xam na ne mokkal gi fa mu àgg ak bind sore nañu lool kon il faut tam nga mën a bind alxuraan ko war a mën a bind parce que alxuraan bind ko ak langue arabe dañoo soree bari na lool xawaat imlaiya ci langue arabe bari na ay régal yoo xam mook alxuraan wuñ ko bokkale wuñ ko maa ngi koy wax fii léegi rek laa tay illa xawmul kaafiruun xam ngeen ne ni ñu koy bind ci arab ak alxuraan bokkut alif boobu boo ne laayee asu gisoo kii bi ñuy def yaa ngay bind benn alif def benn daara door a continuer loolu boo jàngul rasmu doo ko xam kon dam faaw xale ñu jàngal leen ilmul rasmu jàngal leen dabt ñun ñu xam nan la ñuy maase baat yi baat bii da nga ko maas bii doo ko maas loolu faaw nga xam am xam-xam boobu soo paree nag nga am loxo bu rafet ngir booy rawante ak say morom nga mën a jiitu kon daal euh, imaam alxasan euh, taal euh, lii mooy suñuy tànk bëgg rek ñu soñu xale yi euh, ci ni ñuy mokkale ni ñuy mën jànge ñu mën noonu bind. ñaareel bi concours bi ñu xam ne bi ñu demee ba xam ne euh, xëy na digg réew mi ci wàllu bind seen euh, naawul xatt bi fi am ak sud bi dañu xaw a sore ñu nekkoon nañ boole juróom benn région yi nga xam ne ñoo niroo caractère bind muy Matam Kolda Ziguinchor Kédougou tàmba ak ban ak Sédhiou ñooñu ñu ne lañ leen defee benn concours zonal concours boobu ñoom juróom rek ñoom ñoo ko seq ñu waa fii ki bind lii du ci bokk ndax dañu gis ne concours rawante la boo dee rawanteeg ñoo xam ne fukki at ak juróom fanweer at ña ngay bind ngay door a commencé da ngay mujj bàyyi ndax doo jël pay benn yoon ñu ne leen ber di leen jàngal bind di leen ber bu ñu demee nag ba am benn mustawa na alin eh, fii jawdatul xat ñu mën musaaraka fi musaabaqa tey bi nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk loolu daal mooy initié initiative bi kon daal euh, bu dee bii moom koo ci xam ne nag yaa ngi fii te mën a bind moom directement bokkal ci concours national bi euh, bu ngeen koy ni ñuy bokke moo mois de août ci la ñuy ubbi kii danañ ko yëgle incha allah taala da ngeen ci jot su boobaa da ngay bind aw xët moom ngay bind moom àgg nga maas ko def ci la ca war a nekk da nga koy xool bind ko sa mbind mu rafet xool ko bind ko mbind mu baax def ci sa numéro téléphone ak ak ak dëkk bi mu jógee jox ko euh, Mouhamad wala nga jox ko euh, Mouhamad euh, Bouwaro Male buñ ko dajalee Mamoud Arona comme mooy kii kii bi régional bi danañ ci jot ñu xool fan lañ koy corriger incha allah taala boobu moom neexal bi juróom benn million la juróom million ak genn wàll ak juróom million da ci ñuy jitu bu dee bi téeméeri junni la jëm so bu dee zonal bi kon daal imam euh, Alassane Tall loolu mooy kaddu yi xam naa jox mu jox ko waa bax après mu tënkal kii baax waaw bu dee bii amul at bii moom eh, amul at bu dee bee nag eh, national boom moom 40 la waaw ñeent fukki at waaw bu dee bii moom ñëpp mën nañ bokk jàngalekat yi ku bëgg bokk rek mën na bokk bii moom kenn tëju ko kenn tëju ko kenn tëju ko comme bii moom ñi ko mën bari na ñu ne nañ ko commencé wutal ay régal kii tuut mais bii moom kenn tëju ko comme neex nga bokk waaw comme neex nga bokk o wi ko no kalɗo naane addi ɓe tan ko affaire bindu alqouran o addi noon tarih seeɗa ndeneral allah yahata ɗo accatɗo alqur'ana no winda ko huñinoɓe qur'ana ɓe puɗɗa puɗɗi mayde puɗɗi mayde ko de sahabaɓe ɓe mbiyano joni alqur'ana winde joni noon ɗum kadi laarama ha joni tawi ko ma mbaɗen feere binne alqur'ana ga meɗen taw ko ga meɗen alqur'ana winda wona dula goɗɗo gandana en ɗum e ɓe mbi kadi o wi kadi en eɗen gandi e windude qur'ana ha gasa ɓoori newade he neɗɗo hunjakol qur'ana to jang jande kono noon en daari ko janngoɓe qur'ana hunjoɓe ɓoori hewde wawɓe windude ɓe ɗum waɗi ɓe dutta yimɓe ɓe ala kulli e dutta wawde windu alqur'ana no hanniri ni ɓen jogii concours alqur'ana hitan fo hitan mbatteɗo kala he meɗen paalaɗo ɓafra a yewtani 40 a wawata taweede taweɗa hen noon ko ma hello alqur'ana mbindago ha gasa binda ɗum ha moƴƴa mbaɗa hen adresse ma o numéro ma téléphone mbaɗa e ma kola gokka minen soit gokka boire walla gokka kam on ɓe kalna en concours o tuma waɗoyte hen noon gañuɗo fof foof ɓurɗo gañade e million jeego hepta ndewɗe hen a million ji mara ko million joyyi walla jeegom keɓata pour wawde windude nde concours o ko ɗum nafata ɗum ɗum ɓe mbaɗa e hirjina yimɓeɓe wawde windu alqur'ana sukaɓe ɓe kardinam ɓe ha alqurana wawi winde tigui tigui no hanniri ni taw wona binde gaddaɗo la goɗɗo tan jangguidata ɓe men binda e duɗe meɗen law wonno kala mbo wi kamɓe mbakke mbakke neɗɗo yaltata ha ɗo jikkuma poɗɗen wadde e duɗe meɗen walla e galleji diine ɗo a wiide dula goɗɗo han no wawa non seulement koñora alqurana mais kala winde alqurana taw ko awinen hoorema raɓɓide e qissa ko ɗum o haalani en heen gokka imam o eh, gannaaw buñ leen bisimilla marhaban bikum wa ahlan wa sahlan ala ala rihabil mawjud eh, dégg naa wax bi yépp te seen tànk tànk yu baax rek hmm, ñëwoon ngeen fi daaw am na lu ngeen indi woon eh, am na solo ren nag moo gën a xóot lu ngeen indi fii tam moo gën a ñu ñaan yàlla mu demee noonu bi egg suñu raaya fu ñu bëgg egg yàlla na ko yàlla def loolu e, dégg nañ ko te tam dañ ci taxaw incha allah e, nit moom il faut nga tettee ko rek comme lu nga wax ni ñun suñu région yi dafa xaw a suufee ci wàllu bind ak mokkal yëpp bind ak mokkal yépp waaw waaye nag <coughs> lii buy am day tax ñu am ñu am doole ñu am tam tas ngeen ngeen tas ji ñu am saja ci ci lu ñuy def eh, ñun ñaan yàlla rek yàlla eggal ko fu mu jëm te xam naa ne dina egg incha allah am nañu yaakaar boobu ndax daaw lu ngeen dangeen ngeen ñëwoon eh, waxtaan doon ak jox eh, ci téere yi dem ren indi ngeen lii xam naa bu déwénee itam da ngeen indi lu ëpp li ba ñu ba ñu egg fu ñu bugg egg soobee yàlla kontaan nañu bu baax. ko ɗum ɗo tan wonnoo tan dañu lay gërëm aussi di gërëm suñu imam bi ngeen ñaanal ko yàlla yàggal ko parce que ku baax la te lewet lool saa boo ko yëkkatee mu ñëw yoonam nekku ci. waaw moom vraiment ngeen ñaanal ko yàlla ba yàggal ko lool lool ku vraiment ku lewet la voilà. anta bi ni'mati rabbika bi majnun